ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen baalu xaq di leen baal ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal mu mel ne kàddu yi mi ngi jëm rekk ci leeral yenn ci ay kàddu yoo xam ne ñenn ci ay ustaas ñi ngi koy wax euh, te ñuy ustaas yoo xam ne dañu leen di dégg ci réew mi ñuy daganal loo xamante ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal te araam nga leer ci alquran araam nga leer nañ ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem sahaaba yi tere ko ba sax eh, ñi nga xam ne ñoo jiite woon mazahib bi nga xam ne mooy imam malik imaam safia imam abu hanifa imam ahmad kenn ku ci nekk ci ñoom ak niñ ko gisee te loola mooy misik mu mel ne dégg nañ waykat bi bi mu fi ñëwee di riyaana eh, kooku ñuy wax Maodo Faye mu mel ne xam ngeen ne loolu alquran dañu koy wax waxtu nekk ndax am na ci ñoo xam ne waxtu wuñ demee ba gis lu euh, mbirum àddina ñëw rek dana ñu fexe ba daal di cay la daganoon euh, ñu fexe ba jéem ko wëlbati waaye la xaraamoon ñu daal di koy daganal nit ña moom nee na misik xaraamul te wax na ay waxam ba layal ko nee gisul tamit fu mu xaraamee te it yonent bi sallallahu alayhi wasallam téréwu ko fenn ba wax ne Seydi Hadji Malick sax encouragé na ko ci biir ay waxam loolu wax la ju yoo xam ne Seydi Hadji may si encouragé wu ko te danaa ci ñëw la ci njëkk mu ne gis ko ci alquran kenn du ko wax ne ko ah force nga gis ko de waaye kon dañ ko waroon wax ne ko noppil ndax kuy wax ci alquran boo ko peegu da nga caa war a noppi boo demee ci alquran suratu luqman juróom benneelu aaya borom bi subhanahu wa taala dañuy wax moom suñu borom subhanahu wa taala di wax ne wa min naasi man yastari lahwal hadis li yudila an sabilillahi bi xayri ilmin wa yataqza usuan ulaika lum asabul muin wa ida tulla alayhi ayatuna wala mustakbiran ka an lam yasmaha ka anna fi usnayhi waqran fa basiro bi azabin alim borom bi subhanahu wa taala nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jënd waxe caaxaan waxi caaxaan mooy misik waxi caaxaan mooy misik Abdullah ibnu Abbas nga xam ne mooy hibrul umma nee na aaya bi misik lay tekki ndax misik ku ne xam na ne caaxaan la koo xam ne day taxaw naan ndaw sa ba ma ko bëggee ba mu bëggee mu jaar fi te ni wax dara amu ci taxaw ci ab télévision woo koo xamante ne ñi nga naan sama soxna te demu leen jàkk demu leen église demu leen fenn loolu lu ko gën a doon caaxaan amul fenn mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jël seen xaalis dem jënd loola wala ñu dem dagg be dem di leen seetaani borom bi subhaanahu wa taala te nee na ñooña suñ demee ba ñëw ba wusi leen duñ leen wan yàlla ak yonantaam wala ñu wan leen yoonu siraatal mustaqim waaye li yudila an sabilillah dañ leen di yoonu yàlla waaye bi xayri ilmin fekk dañ kaa xamut benn sax mën nañu jàng ay alquran wala yu ko nuru di ko reetaan di ko saboote mooy waye taqaza usuwan ulaayika lu ma asaab muhim te yàlla nee na ñooñu kat foofee ñu nekk tey nga xam ne dagg nañ ay biyee toog waxtu wuñ ñëwoon ah woo fa ab conférencier woo koy wax qaala laaw qaala rasul nee na dañuy wane ginnaaw ñun ñëpp ay jóg dem wa isaa tulla alayhi ayatuna wala mustakbiran ka an lam yasmaha ka anna fi usnay waqran fa basiru bi asabin ayim borom bi suñ leen doon wax naan leen yàlla nee na yàlla nee na su boobaa dañuy wane ginnaaw jóg dem kon alquran tere na ko moo tax sax am na ci borom xam-xam yu bëree bëri ba ci ibnu habla ibnu habbas nee na boo demee suurtu nañ mu afa min asal hadisi taajabuuna wa tadaakuuna wala tabkuuna wa antum saamiduuna nee na aaya boobu misig la ñëw di ko wax moo tax yonente bi alei salatu salaam waxoon na lii nga xam ne moom la Maodo dafay wax yonente bi salaa salaam waxoon na boo demee ci Buxaari yi da ko ca fekk علي صاحب صاحب نينا والله يكونن في أمتي أقوام يستعيلون العر والعريض والخمر والمعاصي نينا دنا نيو سي سما قيد او نيت و خامني دانيي داغالال نجالو يستعيلون الحر حر اي سينا دانيي داغانال نجالو واي والحرينا صوي بيغا خام دافا عرامون تي غور ني نكو سولكو والخمر اك سانغار دنج نكو بو ياغول ام ني نان سانغار عرامنا آه، داغان نا تا يينن ريو يي دي واخنا اي جولي لاني واي والمعاصي معاصي موي القناء وموي لان ميسيك القناء آه، ميسيك da gis ñoo xam dañ koy dagganal kon day mel na lii kii waxoon nii lii kii dëgëral nii yonent bi alayhi salaam waxoon na ko moo tax sax boo ñëwee ci al alquraanu karim borom bi subhanahu wa taala bi muy tagg gaayam yu baax ya dafa wax ne wala siina laa yashaduuna suura wa isaa maro bi laxi maro kiraaman nee na gaa ñu baax ñooñu mooy ñi nga xam ne waxtu wu ñu tuddee waxtu wu ñu gisee nit ñi def ay caaxaan ñu romb rombal waaye ñoom duñ seede mukk mukk ay caaxaan lan mooy seede caaxaan mooy misik mooy koo xam ne day nekk ci ab public nit ñi di war ko mu xëcc a ndawam di wax ci ay wax naan kii nangam a kii nangam te ni wax dara amu ca moo ko bind ko loolu caaxaan la moo tax sax boo demee ci ku ñuy wax Muhammad ibnu Unayfa nee na asuur fii mi ngi mi ngi tekki musique moo tax Abdullah ibnu Mas'ud nga xam ne ku ne xam na ko nee na musique ci boppam araam gi ni mu bone ci nit ki daf koy def ab naafiq mu ne musique yanbutu nifaqa fil qalbi kama yanbutu ma sara neena nit ki buy diglu musique neena xolam day ball day doonum nafiq manam da koy da koy jàmbat da koy suxat ba xol bi nek am nafiq comme ndox ni mi suuxate am bay moo tax foo fekk diglikatu musi musique dëgg dëgg dëgg lu mu jàng-jàng xal law xal rasul rek dana ko modifié ndax lan Abdullah ibn Mas'ud neena daf koy jural ak nafiq moo tax ku ñuy wax Yasid ibn Walid neena iyyakum wal qinaaw fa innahu yanqusu al hayya wa yasidu sahwa wa yahdimu al murua neena na ngeen ko wattandiku ndax neena na musique ci bopam nee na day wàññi kersa day doon li bànneex day wàññi kersa day li ak bànneex te kersa nag dañu wax ne genn wàll la ci diine moo tax ba ko laajee imam malik yàlla yàlla gërëm ko dañ ne ko misik noo ko gisee mu ne jëfi paasix la moo tax kon kii lii mu wax ni yow jullit bi da ngay gëm ne léegi yow mën ngaa julli mën ngaa woor mën ngaa jàngal ko waaye nag na nga diglu misik loolu nag mooy jëfi ab naafiq imam malik nee na euh, diglu misik ci boppam innama yaf innama yafxaluhul fi saaqu Euh, nee na ki koy def daal mooy ab kàccoor faasix moo tax bañ ko laajee imaam imaam Abu anifa moom it nee na misik dafa bokk ci jëfi kàccoor yi faasix yi imaam Abu Sa imaam Saafi ñu laaj ko misik mu ne makruhun sim nañ ko ndax nee na ñu lu tax mu ne dafa nuru ay caaxaani kese nee na ki ko xam ne da koy jënd ak di ko diglu sax nee na fahuwa safiun nee na kooku dafa dese kooku est ce que ak seedeem wër na imaam Saafi mu ne am nañ ci deng deng am nañ ci ak deng deng deng imaam Ahmad ibnu Hanbal nee na yan butu nifaaqa fil qalbi nee na misik moom day daal di dolli naa tëquk nit ki ci ak kolom moo tax alayhi salaatu salaam waxoon na ko nee na woon na ngeen ko wattandiku Muhaawiya sax am na hadis bu mu nett lii Albani wéraloon na ko nga xam ne ñu bëree bëri gëm nañ ko moo xam ne yonent bi salaam salaam tere woon na déjjatiku mooy jékki jekki di yuuxu ko faatu ak ay disin ci biir kër ak ah, dari ndong ment yeeg ah, summi sa yéreeg sooy sol yi nga xamante ni xaalis la ci góor yëpp dafa araam moo tax alayhi salaatu salaam araamal na ko te araam nga leer na nañ léegi nga wax ne Seydi Haaji Maalik radiyallahu taala anhu daf koo daf koo daf ko daganal wala boog ci ni nga waxee da ñoo bëgg wan ne ñu daganal na ko ndax way na ko ca xilaas déedéet demewul noonu boo demee ca xilaas buntu ba nga xamante ni yon euh, Seydi Haaji Maalik si yal na yàlla gërëmal ñu ko ma ngi cay wax alayhi salaatu salaam tudde ko alfaslu saani euh, buntu bi nga xamante ni saani asra fukk ak ñaar في سكر إسراء والحجرة إلى المدينة المنورة سوي لير بنت بابا بچا باس بن نف دا ngay على موم سيدي حاج ماسي رضي الله عنه دي واخني باغا خامتنا علي صادو سلام دم نبا اغ مدينه خرج نبي دو بني نجار من طرب مهيجات فؤاد الحبس الفقم يقول نهن جوار دار بات الضفوف ليس في دربها طلاه من اسمي لله جارية قالت مقنية فعلها لا يزل أله من الجرم وقال لا خير خلق الله مبتسما إن شاء الله ساك الفوز والحكم لول بو ديمي تي خلاف دانكو تي فك واي ني لا ديمي يونت مي علي صلى الله عليه مكة التن لا دال دي دغ فغا خامنتني ني موي مدينة المنورة فكنا بو وا مدينة دون نانكو خار واي باني اگي دانكو دون وايل نان طلع بدر علينا من شنيات الوداه وجب الشكر علينا ما دعا لله داهي ايها المقوس فينا جئت بالامر المطاع aw weer day woo xam ne toll na ci fukki guddi ak ñeent moo fenk si ñun ñun de dañoo nekkoon ci ak lëndëm ak leer ñëw di ñu wan leer gi te mooy siraatul mustaqim kon ñun amatul lenn lu ñu war a def lu dul jóg sant yàlla subhanahu wa taala sant daal moo ñu wax li feeg ndaw lii ñu ñëwal weer wii mi ngi ñaan ñu def leen lii bàyyi leen lii kon ñun sant lañu war a def ndax kii kat yàlla moo ko yebal ci ñun te lépp lu mu andi dañ koy topp lu tax ñoom keroog lañ doon def lépp jéggal nañ leen ko moo tax dañ doon wax nahnu jiwaaru min bani najaaru yaa abasa muhammadu man jaaru ñun de ñooy waa bani najaar ñun daal am nañ mbégte ay ban dëkkandoo moo gën a tedd am dëkkandoo Muhammad alayhi salaatu wa salaam te xoolal lii ñu doon wax booba la suñu euh, yonente alayhi salaatu wa salaam wàcc foofa nga xam ne boo demee ci aaya ba rabbi ansilni munsalan mubarakan wa anta xayrul munsilin yàlla jox ko wàcc waaye booba ñoom ñuy ñëw di ko bakk di wax ne ñun dañoo war a sant yàlla ndax dañoo nekkoon ci ak lëndëm ñu am weer wu toll ci fukki guddi ak ñeent ñëw ne cëpp suñ kanam naa ñu yoon waa ngi kon ñun dañuy sant Seydi Haaji Maalik Si ne ñooña sant gan doon def loola ñu yoroon ndax booba xamaguñ diine di ko dóor ci seen kii ya di bàkka yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko maddu amuñu ca bàkkaar tallaahi min isami giñ naa ne bàkkaar nekku ca booba dañ doon tàgg yonente bi alayhi salaam ndax booba lan xamaguñ diine ba noppi nekkuñu di fecc mais dañ ko doon bàkk di ko maddu te ku nekk bàkk nga yonente bi alayhi salaam kon day mel ne ki boo ne lii nga bëgg a daganal day yey ceew nga daal di delluwaat nga daal di delluwaat ca daara ja wala nga delluwaat ca école ba nga jéem a jàngi alquran ba xam ko jéem a jàngiwaat xadis ba xam ko gëstu mbirum euh, gaañu baax ñi ba xam ko moo gën ngay jël la nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala waxoon na ku njëggu tuuti nga di ko wecce ay yàlla yi tuuti nga di ko wecce hadis yonent bi alayhi salaam ak waxe gaañu baax ñi nga xam ne ba ñuy bindi dañ cee sonn lool mbokk yi xam naa danañ ñëwaat waaye dañuy lu taxaw fii ba beneen rek seen mbokk Modou Kara Lo Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulah